وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يمام وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات يمام واصرف بنا نهج رشد واكفنا سلام وكن لنا بالنوى الشيطان يمام mbokk internet yi ñoo leen ko digoon dañ koy woy di def ñun waa Amsa yi ak yéen ba ginnaaw ëllëg incha allah lépp nekk ci liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba bi xam ngeen nag euh, affaire yi lu muy gën di jege yoon mi di gën a xat gan yi di gën a teew paas di gën a yokk ba tax na nag dañuy génn waxtaan ak askan bi nga xamante ne ñoo jóge fu ne ñëw ci dëkk Serigne Touba xaarim Rasul pour fekkee màggal bi nga xamante ne ëllëg lay am incha allah ñu wax la lan leen jànkonteel ak transport bi lan leen ciy daj bu neexee yàlla topp leen ñu rek ñu dugg ci biir waxtaan ak askan bi comme Amsa TV mooy télé askan bi. Fall ñoo ngi lay ziar. waaw ñoo ngi daloo ziar ba. mu mel ni da ñëw màggal si fan nga jógee ak euh, lan nga daj comme transport yooyu. waaw waaw man de maa mais Diourbel laa dëkk quoi maa ngi jóge ba Dakar mais transport bi ren tane na de par ak ni mu doon mel quoi waaw ren moom tane na ma macha allah. loo ñu mën a wax ci màggal bi. magal bi a ah, ci kan ci kaw ci kanam rek mbiri Sëñ Bamba amul tànku ginnaaw tànku kanam rek waaw dañuy ñaan yàlla sa waay fekk ko ay at i at waaw loolu la ñuy ñaan yala quoi. noo gisee accueil bi bi nga ñëwee Touba jafe-jafe yi maa amoo jàpp coono pour fi ngay dal wala yoo xamante ci ngay xéwalu ëllëg ci bisu màggal. non macha allah Touba moom boo fi ñëwee rek sa waay da nga yokk waaw dañ lay dalal normal ah nga magal sa magal normal après nga woñoo ko ñibbi. à bernde bi ak euh, dalal bi ñu lay dalal boo amoon message booy lancé jeunesse bi nga xamante ni ñoo jóge fu ne di ñëw ci dëkk bu sell bi lan nga leen wax. waaw bu ñu ñëwee ñu salal rek waaw comme que sëñ bi moo woote te ko moom moom salal lay woote ak jaamu yàlla bu ñu ñëwee comme ñu defa ko comme ni mu ko waxee rek waaw loolu la quoi. màggal gi de moom tukki sëriñ bi nga xamante ne amaloon na ko te tubaab yi moom ñëwoon ngir fay lislaam moom mu jugee ci nag waxaat ni dafa jiw ngir liggéeyal yàlla ci bis bi nga xamante ni nii mooy jisul safar bi mu demee ba ñëw nag ba am ndam ci liggéey boobu wax ne bis bi saa bu excité képp koo xam ne sama mbég sa mbég la na nga ma sante la yàlla ci lépp loo mën dalee ko ci ginaar ba ci gileem loola waral nag saa buñ ci excité murit yi kenn dootul am sago ci bis bi lu dul rek mbégug sëñ Tuubaa mooy ñu mbég te dafa wax ni képp koo xam ne sama mbég sa mbég la moo tax dootuñu am sago lépp lu ñu mën ak lépp lu ñu mën dañu ko boole di ko def ci bis bi. di waral màggal gi mooy muy sant yàlla rek di ni ñun ñii di ay taalibeem nan ko ko santale ñu àndandoo di ko santale rek ndaxte jullit même bu dul màggal sax war na sant yàlla mais màggal daf ci gën a am doole gën ci am sens loolu moo tax. waaw lu waral woote bi nag euh, ñun ñun ñëpp ay taalibe lañ war na ñëw xëy na sellal magal bi euh, jéem a góorgóorlu jëfe ndigal euh, te bàyyi tere ci lépp loo xamante ne daal wuñ ko ci biir Touba ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax a baax. màggal gi li ci sëñ bi santaane it xaj na sañsa bi nga wax it ci la bokk ndax def ba mbaax dafa xew te murid dafa bëgg dafa bëgg lu baax waaw murid day sañse sañse bu yiw sañse lu baax. toog fu baax di wax ak ñu baax. boo amoon kàddu booy conseiller sa mbokk jeunesse yi nga xamante ne a ñoo ngi ñëw ci dëkk bi te xamuñu li nga xamante ne borom dëkk bi moom la fi bëgg ak lu mu fi bañ ñi fi def yenn yoo xamante ne fenloowul ak li dëkk bi di laaj lan nga leen. dëgg la parce que fii tamit ñu bëri am nga ñoo xamante ne ñëw nañ fi sàcc leen fi indi. ñi liggéey moo leen fi nit ñi dañuy ñëw di def loo xamante ni neexul borom dëkk bi ndax ñu ngi ñëw ba fii ne ay baay fa lañ te buñ ñëwee fii dañuy tux di def lu neex te loolu noonu sëñ bi maanaam woowu leen ci pour loolu noonu mais ñun moom liggéey moo fi indi te jën yi nag lu ma leen di mooy ñu dem liggéey ndax jamono ji nii ku liggéeyul perte nga ndax du changé mukk nii rek lay demee te ku fi liggéey rek da ngay perte ñii dañuy sàcc ñii di jël yëfu jàmbur ñii di xeex ñii di tooñ ñii di xuloo mais ñun moom liggéey pare ñu jaaraat ni yóbbu suñuy fas dem ñibbi. mbokk internet yu saa TV ñoo ko déggandoo gis ngeen li ngeen xamante ni taalibe yi di dugg ci biir réew mi wax nañ ko malgré transport yi métti yeeg coono yi ñu ciy daj moom yëguñu ci dara ndax tey 18 safar xam nañ ne lépp lu luñ ci def Serigne Touba moo leen koy fayal boppam waaye itam waa dëkk bi coono bi ñuy daj génn seen kër yi génn seen néegi jël seen alal def ci ñoom itam yëguñu ci dara ndax lépp Serigne Touba moo leen ko jaral xanaa nag ñu yemale ko fi tey ba suba incha allah ñu dem ci cérémonie officielle bi ak lépp loo xamante ni moo untu 18 safar bi suba lay doon incha allah fii si Amsa TV merci.